boycotté li nga xam ne rek moo di euh, commission euh, de lois euh, ki leen rek di honorable député Cheikh Thioro Mbacké moom nag mu ngi wéy di démentir boobule xibaar moom sax nee na loolu ay humeur la yoo xam ne rek gis na ko sur la toile aux réseaux sociaux yi mu ngi wéy di daal di am li nga xam ne rek moo di ab taxawaay te loolee nee na amul benn yoon moom nee na nag ñi teewoon ci boobule li nga xam ne rek moo di commission des lois mën nañ ci ràññee biram Souleye Diop Serigne Cheikh Thioro Mbacké Ismaïla Diallo Rama Anta Bodian Roqi Fatma Mbodj Cheikh Aliou Bey Samba Dang Olimato Sidibé Ayib Dafe Chérif Ahmed Diko euh, pour rappel moom nag mu ngi indiwaat di fàttaliku lu mu xam loolee euh, loi bi moo ko daal di xam la nee pour rappel tous les députés PASTEF membres de la commission des lois étaient présents Biram Souley Ismaël Diallo euh, Roqi Ndiaye Ayib Dafe la présence des députés non membres de la commission n'est pas obligatoire donc loolee la indi woon comme leeral moom Ayib Dafe nee daal yenn ci yi nga xam ne teewuñ fa ñooñu bokkuñu ci li nga xam ne rek moo di euh, commission des lois mu doon ay kàddu yoo xam ne rek jot na ko euh, daal di yëkkati moom honorable député Cheikh euh, Thioro Abdou Mbacké Cheikh Thioro Mbacké moo ko daal di xamle ci rimoon boobee nga xam ne rek ñu ngi doon way di ko daal di wasaare ci boobu ak léegi mu doon ay kàddu yoo xam ne moom daal di na ko eti mu mel ñu toll y a beaucoup d'intox pense que li xew assemblée nationale it dafay wéy rek di soxal nga xam ne moo di nit ñi moon moo tax certainement xibaar boobee nga xam ne génne woon nañ ko ñoom très rapidement génne nañu daal di indi ab wàllum boycott boob nga xam ñu doon ko wax waaw euh, la manipulation politique dafay dem euh, ba daal di indi li nga xam te ni moom mooy euh, division parce que jàpp naa ne propos yooyu noonu ko yëkkati da koo defoon dans le but mën a def benn manipulation boo xamante ni bu doy wax lay doon parce que amaana peut ñu ngi wax léegi que ni pourquoi yenn ci ay députés yi nga xamante dañoo bokk Pastef bañ a dem wuy ji ci li nga xamante ni moo ni mel parce que dama gëm ne ñoom aussi tamit lu ma gëm moom mooy le fait projet dañoo def benn projet de loi ñu bañ a dem wuy ji ça veut dire que ne kon est ce que mënuñu leen a classé ñi nga xamante ni nañ ci lu ne mel moo tax ma gëm ne aw benn yàqin kanikat ñoom ñi nga xamante ñoo ànd ak Ousmane Sonko nga euh, moom mooy lan wéy di gàntal wéy di bañ wéy di xeex li nga xamante ni moo ne mel parce que loolu la ñuy xaar ci ñoom parce que moom mi nga xamante ni à l'époque moom moo gënoon wax kanikat ñu ngi sax xaar euh, wala sax bañuñu dem ba moment donné ñu def benn loi d'amnistie kanikat dañuy amnistie li fi amoon mais boobaa nangam ak sàngam nga xam ne benn météo politique la boo xamante ni wax dëgg yàlla bu ñëwee nag ba toll ci ñëpp war a nungoo li nga xamante ni gis-gis bi ko yàlla may bu nee nag bagsi ci nag ñu bëgg a def loo xamante ñoom ñu ànd moom nañu xam ne dañuy trahir Ousmane Sonko te góoma benn yoon wax dëgg yàlla à taxawaay bi ñam moo tax nekkuloon loo xamante lu ma gëmoon lu ma si doon wax daal mooy bu fekkan demuñoon def nañ li nga xamante kat ba xeex jotee xeexoon nga mais paana nga may dem di wuji moo tax ma gëm ne aussi euh, dafa nekk benn manipulation boo xamante ni ñoom seen biir la am on sait pas nag euh, fan la jógee ak fan la mel mais aussi tamit le fait euh, le plus rapidement possible ñu génn tontuwaat loolu aussi tamit lu ñuy saluer la parce que bataille yi moom moo toll foofu communication politique moom moo toll foofu lu ci am nag à travers les supports médiatiques kenn ku moom mooy kat balaa ñu génn di demaat te dafay nekk loo xam te ni itti la it parce que bi day am moo loolu moom mooy en tout cas la réponse politique ah, moom moo nekk chef protocole euh, bu Ousmane Sonko dëkk nag moo nekkoon ganu 2A TV ginnaaw bu euh, ci rencontre entre Atepa ak Lady Ousmane Sonko moom nag nee na ñaari yoon dong la am te rencontre bu njëkk bi matul sax li nga xam ne moo di fukki minute beneen rencontre bi Ousmane Sonko dafa wéy di ko daal di euh, xamle ne ko daal bàyyi rek di fi ñëw di jël information di yóbbu feneen mu mel nit moom indi na ay leeral ci diggante rencontre probable bu wax ci diggante Ousmane Sonko ak da nga xam ne rek moo di Pierre Goudiaby Atepa waaw xam nga loolu aussi dafay ñëwaat par rapport ak Ousmane Sonko taxawaay bi moom parce que aussi dama jàpp ne Euh, boo nekkee dans le besoin ci yenn mbir yi ba nit ñi xam ko rek mën nañ profité ci lu nu mel mais euh, li ñu doon wax moom mooy voilà Atepa génn na wala Anglutène génn na nangam ak sàngam ci ñi nga xamante ni peut-être ñoom lañ doon njortu kanankat ñoom ñooy dem ci Ousmane Sonko demoon na sax Ousmane Sonko ba un moment mu wàññi visite yi nga xamante ni ñoo doon ñëw si moom parce que aussi tamit dem ci Ousmane Sonko ñu gis leen en image même bu leen gisul sax ci ay image mais dégg nañ ne dem nga fa ba mu leer nga génn wax a génn bëri ci yoo xam moo tax lu am solo moom mooy même su dul am na wala amul dañoo nekk si moment boo xamante ni Ousmane Sonko na xam ne am na benn avenir ko dese mooy après condamnation am dafay wéy di moom mooy en tout cas naa ne euh, beneen phase boo xamante ni mën na ci profité mais su moytuwul à travers nu mu nekk peut-être wala ñu jàpp ne dafa nekk dans le besoin su moytuwul mën nañ ko tegal ay dëgg sarax yoo xamante ni même libération sax mën na nekk benn libération boo xamante du ko jural njariñ moo tax ma gëm ne que ça soit Alioune dañ fay dem que ça soit dañu dem pour dem wala pour dem pour def médiation parce que aussi tamit la médiation mënul ñàkk ci li nga xamante ni moom mooy adversité politique gis nañ ko fi depuis en tout mooy nañ ko def anam boo xamante ni dëppoo na ak li nga xamante ni moom mooy yoon bañ a génn di déformer kaddu nit ki wala bañ a génn di euh, relater ay faits yoo xamante ni dëppoowul ak li nga xamante ni moom mooy la réalité te loolu la ñu wéy di gis mais Ousmane Sonko nag ci grandeur comme bu fekkante ne loolu am na ça veut dire que ni am na sens boo xamante ni mën na démentir à travers ñenn ci ñoo xamante ne ñu ngi ko jege mais pour ñëwaat par rapport ak lu ni mel moom mooy bu mu sacrifier li nga xamante ni moom mooy bëgg-bëggam ndax lan dafa nekk ci moment xamante ni dafa yàkkamtee génn moo tax ma jàpp ne tey am na ay euh, lecture politique boo xamante ni moment bi la koy gën a mën a def te souvent dañuy wax que nga nekk pour sàkku xam-xam doo sax doyal génn parce que xam-xam géej jàpp naa ne Ousmane Sonko moment bii nii bu génnaatee di boo xamante ni da nga naan est-ce que li nga xamante ni moom mooy réew mi ah ñu jeexalee kook euh, waykat bi di Coumba Gawlo Seck moom nag actuellement dafa lëkkaloo ak ambassade bu Japon génne ab koppar gu toll euh, ci cinquante millions de francs CFA pour defaraat li nga xam ne rek moo di ab école bu nekk fële ci diwaanu Pikine mu mel nag Mor moom it mi ngi ñëw très rapidement di daal di jëmbale ñi nga xam ne rek moo jëm ci wàllum euh, njàng mekki ni mel. waaw loolu nekk mbir boo xamante ni lu ñuy saluer la di wax dañuy rappeler. Euh, la fois passée maa ngi koy wax ci plateau bi docteur Rouss Gustesman mi nga xamante ni 93 ans la am jàngee euh, collège Albert Hussein États-Unis d'Amérique génne 1 milliard de dollars ngir jàppale ñi nga xamante ñoo fa nekk bépp étudiant bu fayati li nga xamante ni moom mooy frais de scolarité ça veut dire que ne ñoom aussi bu defaatee lu ni mel mooy que ñu ngi ñu ngi nekk ci loo xamante ni wax dëgg yàlla parce que euh, dëkk aussi tamit li nga xamant ni moom moo koy yor ñu xam ko ñu ñàkk koo xam moom mooy éducation éducation bi nag mën na bëri te wuute mais lu am solo moom mooy nañu fexe ba kenn ku nekk ci dëkk mu jàng parce que loolu mooy li nga xamante ni mooy tabax ay génération yu ñëw ëllëg mais lu ci xam moom mooy dañuy euh, euh, koy féliciter di ko encourager aussi tamit à li nga xamante ni moom mooy a sunu en tout cas jàmm parce que à éducation bu mucc ayib assurer li nga xamante moom mooy avenir dëkk bi parce que amaana peut-être à l'âge de 93 ans nga def lenn amul loo ci séentu le passé def te yàlla tax mais Coumba Gawlo aussi tamit peut-être lenn moo ci des mooy xeet bi nga xamante ni ñu planifier li nga xamante mooy en tout cas ñu jàppale pour en tout cas éducation bi ñuy transmettre suñu xale yi parce que aussi tamit am na si loo xamante bu fekkante ni teel a ñu mën a xam bu baax a baax li da ci biir mën nañ ci profité jàngal nit ñi loo xamante ni dëppoowul ak suñu ay réalité moo tamit ma jàpp ne c'est à waaye aussi nañu gën a vigilant par rapport ak lu ni mel te jàpp na loo xamante ni vraiment la. Ah, ah, jërëjëf Mor xibaar yi ci jàngat yi am solo it jaajëfal également nore eh, ni mi nekkoon ci xarala gi Abdou Khadre mi nga xam ne jàpp na ci lépp lu jëm ci wàllum coordination eh, ñu ngi koy jaajëfal lu baax di leen dox di daje incha allah ci kanam tuuti bu 16h eh, ci émission boobee di wax sa xalaat 18h également dalal fi Ibrahima Thiam bokk ci JPS ci parti bu Ousmane Sonko ñu leen jaajëfal lu baax jaajëfal ñëpp ñu leen ñi teewlu ci kanam incha allah ak yeneen édition wala leen topp suñu ay programme ndaxte njëriñ ñu ngi ci bonsoir à vous a appétit